maa ngi tudd Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk député assemblée nationale nekk vice président commission de loi bu assemblée. tey daje bi nga xam moom lañ fi daje tey nga xamante ni dañu woote pour askan wi xam li war a xew suba ñun ñi nga xam ay député lañ te war faa teew suba tey woo askan wi yëpp ñu génn teew fa suba. ndax assemblée nationale assemblée nationale askan wi la il faut que ñu leeral askan woowu lan lan war a liggéey suba. sama collègue Ousmane wax na ko dafa am ñaari parceloir yoo xam ni benn bi mi ngi nekk nii le parceloir numéro 10 ba 2021 modifié à loi numéro 65 60 le 21 juillet 1965 des code pénal am beneen parceloir boo xam ni mi ngi nekk parceloir numéro 11 ba 2021 modifié à loi numéro 65 61 21 juillet 1965 code procédure pénale ñaar yi mooy complété ñooy ànd ba tax li Macky sàll bëgg ci caay-caay mu am ko li nekk ci biir loi bi nag ginnaaw bu ñu ko jotee ñun te nga xamante ni peuple bi rekk moo tax ñuy liggéey jox ko ñun ko war a jox ñu waxtaan seeg ñoom ñu laaj ministre bi yin ko war a laaj amuñu ay tontu askan wi nga xam ñoo ñu yebal assemblée nationale yoon def nañu wax leen li nga xamante mooy pour bi. loi Macky Sall mi ngi ko signé 15 juin 2021 juróom-ñetti fan bi ñu ko signé ak bi ñu ko war a indi assemblée nationale bi ñu ko indi assemblée nationale ñu war koo wote moom la. muy poursuite urgence boo xam ni amul lenn lenn loo xam am na urgence ci projet loi bi tax ñu bëgg koo yàkkamti nii patam patameek nii ngir bëgg a faagaagal bëgg a sacrifier askanu Sénégal loolu moo tax bi ñu dajee commission. ñu wax ministre de la justice garde soo ni ko lan mooy ndey lan mooy yillaay procédure bi nga def ko procédure urgence mu ne à ah, président de moom la neex mu def ko ndax am na si droit ñun nag am nañ si droit aussi pour kaw wax ak peuple bi ba pare wote contre nga xam ne seen lépp dañ koo programmé dem na ba ci seen programmation xam na ne loi bi buñ ko wotee assemblée nationale ñun ñii ñu attaque conseil constitutionnel mën nañu am dëgg mais xam na ni conseil constitutionnel tey ci guddi am na ñaari membre yoo xamante ni deetuñu valable pour nekk foofu kon bu ñu ko déposé tamit du wujj fen ñoom xam nañ loolu te waxtaan nañ si avant loolu kon muy loo xamante ni léegi seen lépp dañ ko planifié ñu indi ko encore si jamono joo xam ni ñu ngi wote pour su di finance initiale de euh, de rectificatif nga xamante nii ku ne xam ne projet loi de finance initiale wote woon na ko muy 4500 milliards francs CFA ñu dem ak seenu cuune ak seenu ñàkk man tax ñu xam ni mën nañu liggéey ñu def loi de finance rectificative ni dañuy jël 150 milliards jox euh, jeunesse bi jël 40 milliards jox euh, ministère euh, de la santé pour ay ñàkk jël 39 milliards jox ko Sénélec te ku ne xam na ni Sénélec si boppam. ministre bi wax na ñaari at yi passé at mu nekk dana jël xaalisu Senelec dugal ko ci budget national kon lan mooy yiil la jooju noonu ak lan mooy yàkkamte googu moo tax may laa si appel bi union nationale ak kilifa diine yi xam ni fi Macky Sall jëme réew mi baaxul nañu ko arrêté balaa béy di woy mbuus mais man nag li ma jàpp yéen ñëpp pour ngeen bàyyi ko xel il faut que ñu wax xam aussi ñoom li ñu nar li ñu ñaar lenn kese la mooy pexe yii yëpp ci Ousmane Sonko la ñu koy jëme dafa bëgg mu leer ndax waxtaan nañ ko moom kese aussi moo tax ñu war a def modification yu gaaw yi ak yu bon yii pour bëgg koo xam ni comme mun ñu koo jàpp fenn danañ jéem a xool fu mu mën a jaar pour dañuy woote ay manifestation ñu dugg seen biir yàq ko ñu ni moom moo ko yàq wala ma woote il faut askan wi xam loolu pour ñu jéem a faggu ñu jéem a fagaru xam ni lii. du opposition bi kese société civile a ngi si kuréel gépp ñu ngi si waa FNR waa MDD ak ñi nga xamante ñu ñooy député yi ñu ñëpp ñooy ànd ci xeex bi pour li nga xamante ni mooy combat démocratie man yaakaar naa xeex bi sax moo gën a raw xeexu le 23 juin ndax léegi ñu ngi koy fàttali assemblée nationale fa la ñu jógee pour wati bitse bi ñuy wax la président ñas ku ne xam na ni ñu ngi ko doon feet dem mais xeer bi nga yoroon mi ngi nii après ñu war koo wan. mais xeer boobu noonu tey bu tojoon Assemblée nationale du toog foofu mais su dommage que ba ma leen waxee ni mais li nga doon xeex 23 juin bokk na si troisième mandat dafa ay député Macky Sall yu nii bokk si woon kon moo lay wan ne troisième mandat Macky Sall jaral na ko bakkanam ndax xam na ni moom bu fi jógee képp koo xam ne àndoon nga ak moom tu luuba àllu réew mi sa kaso bi ngay dee ñoo ñoom ñoo koy ñaax ñoo koy saax nu ko bul génn bul bàyyi comme la ngay dee rek deel benn yoon comme nag dafa bëgg a dee ci suñu nguur ñu tam ñun dee pour nangu suñu nguur c'est vrai merci jërë ngeen jëf